loolu nekkul ci bulletin de salaire rek am na ñuy dund dund bu noble te duñ la wax ni la fii laa koy jële ku leen jox yow la neex nga jox leen mais tawatuñu kenn seen bopp bu ko defee nag baatu daayira boobu moo yenu li ci des yépp qul li dawaa'iri inna alxubba munxasirun bi sixati alcaqdi wa altawxidi lilhadafi walsafi walcamali almacquli fi adabin la biltamalluqi waltasfiqi wa salafi waaw kooku ci waxinu capitaine boog sama góor gee ko wax waaw góor yi moo doon jàngale daayira mooy la mu ni daayira d'abord bu laluwul ci cofeel waaye cofeel yi itam pas-pas a koy ëmb bi ci des itam moo di mbooloo mu ànd te bokkuñu fu ñu jëm jaru ko bu dee kenn ku nekk day wut jaar jaaru boppam te ni ñoo bokk mbooloo mi mais jaru التوحيد للهدف waaw wasafi rang bi di benn lu xew ngi ñu àndandoo ko defandoo ko wala amalil maaquli li ñuy def ñu teg ko ci xel te bañ koo teg ci xir waaw fii adabin nag yëpp teggin lal ko laa bi tamalluqi bañ a nekk di piisante rek wa tasfiqi di fi tesu rekk wa sërëfi lu ñu fi dajalee ñu yàqu ko jaru ko jaru ko loolu tax maa ngi ciy waxtaan ak capitaine dafay am beneen conscience bu nga xam ni kenn ku ne individuellement yaa ci travailler sa bopp d'accord aayul sax dem nañu guddi ajuma waaw waaw bi ñu paree oustaz bi defal nañu waxtaan nangam nangam mais am na ñuy dem guddi ajuma te la fa oustaz ba wax boo leen ko laajee xamuñu ko bi ci des mooy bu fekkee ni oustaz biy waxtaan charme nit ñi rek moo tax mais jaru ko waaw du dëgg parce que dafay jéem a séduire mais instruirul waaw boobu it lu jara seetaat la du dëgg bi ci des mooy teggin bi am na koo xam ni booy ànd ak moom te amuloo teggin parce que bokk na ci li gën garaaw ci àdduna bi nekk ak sa kilifa ay njabootu biir néegam nga yegg ci bañ leen ba di wër di ko wax fu ne boole ceeg di wut tur yu kenn xamul ku nekk nga wutal ko tur te te sa xel dal kooku bêtise gënu ko rëy moo tax il faut faire attention sa mbokk kese kese rek bu la tooñul am na loo xam ne boo ko defee yàlla wan la ko moo tax nag te tamalluq bi dafa am sens yu mu am yu bare dem ci ba sa mbokku daayira bu rombee sax nga daal di ko bas keneen daal di koy def nii ci bopp bi pour ni ko sa waaye ngoog maanaam ah, yow lañ doon jëw yow lañ doon jëw boobu doxul ndax am kersa tuuti baax na waaw am kersa tuuti baax na waaw waaye itam xam na aayu parce que ku bëgg wane ni danga bëgg aayul waaye bañ a ëppal waaw loo def looy def rek def ko ak discipline waaw parce que itam